mooy euh, coach Alioune Cissé ak ses poulains nan nga gisee ban jàngat ngay am ci suñu équipe bi ñu am ni war a dëgmal Coupe d'Afrique bi d'ici quelques semaine waaw euh, d'abord féliciter leen. Mm-hmm. ndax euh, bu ñu waree jouer qualification ci juróom-benn jongante ci ñeenteelu jongante bi ñu qualifié. waaw loolu jaaraama rek moo ci war a mën a tegu. Mm-hmm. après nag euh, ñun Sénégal dañu dañu xaw a jafe euh, parce que dañoo bëgg dóor gaa yi dóor leen lu bare ak football boo xam ne. Euh, jeu bi waaw ma macha allah. Mm-hmm. jeu bi boo xoolee terrain bi ñu fubalee Congo xool terrain bi ñu fubalee lome mm-hmm. la dernière fois ak taw bi. loolu yaakaar naa ne. Euh, bu doon Brésil wala Espagne sax jeu bi dina xaw a sooxe dina changé waaw boo xoolee par contre mhm. euh, matchu bër euh, bërki démb bi fii ci Thiès contre Congo am na ay séquences yoo xam ne ay séquence yu am maanaa la waaw mhm. wutee na lool et malgré le fait que amul woon enjeu mhm. parce que luñ ci mën a wax rek match bu am enjeu ak match bu amul enjeu du benn Euh, ñu war a également taxaw ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu liggéey ci terrain Thiès bi mm-hmm. pour que mu amélioré wu mm-hmm. bu nga gisee ne terrain Thiès bi amélioré wu na di nga gis ne jeu équipe bi amélioré wu parce que jeu bu baax jeu bu rafet mm-hmm. mënuloo ko def ci terrain bu bon euh, loolu moom àla kuliyaan yi seet boo seetloo footballu équipe nationale Sénégal du gën a rafet lu dul bu demee coupe du monde parce que terrain yi ñooy fekk coupe du monde. firnde na ba ñu demee match amical fële ca Brésil sax. c' est ça tout à fait mhm. mais day fekk terrain bi nekk un terrain de qualité. Mhm. terrain bi mu nekkul terrain de qualité jeu de qualité du am looloo tax ñu yàkkamti stade du Sénégal bi donc euh, yemb ci mois de février bi pour que mois de mars ci tour qualificatif bi ñu mën koo inaugurer euh, di ñaan aussi euh, pelouse bi. doon pelouse hybride mhm. mooy li nga xam ne mooy qualité pelouse maximale bi nga xam ne tey moo nekk ci tous les grands terrains mhm. tous les grands stades du monde muy Barcelone di Paris di Munich di Manchester eh, di Liverpool qualité terrain boobu la ñu war a am fii te bés bu ñu ko amee fii di nga gis ne non seulement suñu équipe bi bu soobee yàlla macha allah di nga fi gis jeu bu mucc ayib waaye dinañ fi dóor nit fii ba mu sonn kon nan nga gisee woon sortie boobu nga xam ne Sadio Mané amaloon na ko match bi naan terrain bi ñoom mérité nañ lu ëpp lii Sénégal mérité nañ lu ëpp terrain boobu ñu gis ci tontu Matar Ba ak Me Augustin Senghor naan ko fii du Liverpool ak Manchester yooyu. waaw xam nga xam nga nettali xuloo xuloo la. Mm-hmm. te man suma kàddu kàddu jàmm ak salaam la. dëgg la euh, loolu bi mu amee li ci ëpp solo. Mm-hmm. mooy euh, yem yembale nañu lépp pour que terrain yi mën a améliorer wu pour que dans de conditions mën a gagné ay match yàlla def na match yi ñu fubal euh, bi terrain bi amélioré woo yëpp gis nga niñ ko gagné. Mm-hmm. au moins deux buts d'écart euh, fii au Sénégal ak occasion yu bare nga keroog contre Congo bu ñu gagné woon cinq wala six surtout en deuxième mi kenn du wax dara. Mm-hmm. gagné nañ 2-0 te concédé wuñu ay occasion yu bare. loolu mm-hmm. mooy wone également njàmbarte équipe li am solo rek mooy euh, ñu. gannaaw ay jàmm mm-hmm. euh, jàmm ji nag boole ci euh, jëf mm-hmm. jëf ji mooy permettre ñu am terrain bu baax pour que xale yi mën a football dans les meilleures conditions. donc euh, yow su ma la déggee am nga yaakaar que coupe équipe bi di dem coupe d'Afrique fële ca Yaoundé Cameroun que war nañ mën a nekk ci favori yi ci les trois favoris ou bien quatre. waaw parce que xam nga boo demee coupe d'Afrique mm-hmm. en Euh, man yaakaaroon naa déjà en 2019 que ci favori yi lañ bokk te bon euh, man j'étais le chef de la délégation mm-hmm. euh, évidemment sama sama liggéey yëpp ak sumay julli yëpp ak suma yaakaar yëpp ci jël ko la woon mm-hmm. andi ko ko fii Sénégal ak maître Augustin Senghor ak mm-hmm. équipe bi ñu àndaloon yëpp mais yàllaay dogal loolu la yàlla dogaloon mais diggante booboo léegi équipe bi wàññeeku ci ñu ngi koy renforcer. Mm-hmm. ñu ngi renforcer conditions yi nga xam ne moom la ñuy xale yi di préparer woo. Mm-hmm. organisation bi macha allah <laughs> nekkatuma fédération waaye mm-hmm. loolu terewul. ñu reconnaître li nga xam ne mooy liggéey bi ñuy liggéey euh, <laughs> lu mucc ayib la euh, aujourd'hui équipe nationale Sénégal bokk na ci Afrique ci fédération yi gën a organiser. mettre les l'équipe dans les meilleures conditions possibles. stabilité bi avec une très grande stabilité loolu lu jara lu jara euh, euh, wax la euh, donc war na ñoo mën a bokk ci 4 à 5 favoris yi on sait qu'il y a 4 à 5 Algérie ci favoris yi la bokk xam nañ ko Côte d'Ivoire ci favoris yi la bokk Maroc ci favoris yi la bokk Cameroun bi nga xam ne mooy dalal Coupe d'Afrique bi ci favoris yi la bokk donc ñooñu nag pour ñu gagné Coupe d'Afrique foog ñu dajeeg ñoom. Mm-hmm. foog ñu dóor leen Égypte aussi du équipe bu ndaw donc euh, après nag football la. waaye loolu pour ñu dóor leen équipe yu mag yooyu parce que sénégalais dañuy nekk équipe yu ndaw lañ nekk di dajeel. équipe bu ndaw gaa existé wul parce que match quatre-vingt-dix minutes la mais genre équipe Algérie wala Maroc wala Côte d'Ivoire wala Cameroun jeu boobu ñuy produire est-ce que ñun sa xel yow en tant qu acteur sportif. jeu boobu dal na sa xel que am nañ ko ñun pour mën a vaincre équipe yu mag yooyu. bu soobee yàlla am naa ci yaakaar bu baax parce que euh, bu boobaa du doon problème mu jeu. problème mu efficacité lay doon. Euh, te euh, ñun am nañu joueurs yi nga xam ne am nañu compétition. Mm-hmm. am nañu joueurs yoo xam ne xam nañu lan mooy haut niveau. Mm-hmm. am nañu joueurs yoo xam ne xam nañu lan mooy les moments importants d'un match et les endroits important d'un match donc am na nañu euh, coach boo xam ne am na expérience euh, Afrique am na expérience coupe du monde. d'ailleurs moom lañ bokk na ci ñu nommé ne les vingt cinq meilleurs coachs du monde. tout à si la bokk. lan nga ban xalaat nga ci am ak jàngat. non euh, bu ma yeggalee ci ci ci d'abord suñu suñu yaakaar. Mhm. d'ailleurs. la preuve c'est que amul équipe yooyu koo ci naan Sénégal ngay dajeel mu tëdd nelaw néew ma ñoo mën ñëpp waaye kenn mënuñu euh, donc euh, euh, loolu nag après football football la comme on kenn du décréter victoire waaye daal am nañu yaakaar ne am nañu loo xam ne xëy na bu ñu ci suñu borom dimbale war nañoo mën a gagner effectivement un titre mm-hmm. maintenant Aliou Euh, mu ngi ci bopp équipe nationale bi léegi moo am am na juróom benn at euh, Sénégal mooy premier mondial depuis près de ñeenti at bu ñuy nominé bu fekkee ne considéré nañ Afrique ne ci ci ci mbooloo football mondial la bokk mm-hmm. euh, entraîneurs yi nga xam ne nag ñoo nekk ci boppu équipe yi nga xam ne ils son premiers en Afrique depuis ñeenti at mm-hmm. bu ñuy nominé ay entraîneurs bu ñu leen nominé wul doon nañu jaaxal donc ñi nga jàpp ne waruñu am confiance ci moom tout le temps di ko ŋàññ naan dafa